suñuy jaar jaar daal dañu nekkee ndaw dañoo bañoon lépp bëgg xam-xam xanaa wax na su ko xaaritoon jar doonaa ko am. abonné wu ci seen bu Ndiamé TV bësal na ko station nga mën a abonné ndax ngay mën a am vidéo yi ñu dugal chaque jour. wa radiyallahu an seyxina seyxi Moussa Cissé. إمام الكامل الحمام الكامل إنسان سوي الفدائل وعين إنسان الواصلين من سوي الفدائل الإخوة والأخوات nu xayikum bi tahiyatil islaam lam wa assalaamu aleykum wa rahmatullah mbokk yi mbokki Kër Masaar Daaru Miset noo leen di nuyu nuyu bu sell boo xam ne dañ koy toog teg ci sahibul fadila ki nga xam ne moo woote bés bii mu ne Cheikh Massamba Diop ñu gën koo xàmme ci Diop kurus di siyaare bu baax sunu kilifa gu tedd gi di maam Cheikh Baabul Muridiin di nuyu sunu xarit sunu sëriñ Cheikh Al Assane Diouf borom hikma bi wa man util wa man util uti da xayran kasiir kon yow li la jox màgg na lool a di siyaare mbooleem koo xam ne mu ngi ci tànt bi ak koo xam ne nekkul ci tànt bi waaye rajo bi mu ko koy dégg di fas yéene rekk jublu ci li nga xam ne moo waral woote bi te mooy àgg ci yàlla ak xam yàlla ak gis yàlla ndax woote moom bu fekkee ci yàlla la jëm àgg dafa war a am te àgg su amee am na lu ko mën a wéral am na lu ko mën a firndeel ndax ku jóge fii ne damay seeti président dem ba àgg ci moom siwaat fi nga jóge woon ak ci ñi nga jóge woon ñu ni la ana président nga ne gisuma ko loolu jubul te loolu it du tax ñu gëm la kon ndaw du jóge ci yàlla ñëw ci jaam ñi ne yàlla yónni ñu ne ko ana yàlla mu ne gisuma ko loolu jaaduwut teguwut ci yoon moo tax yonent yépp a gisoon yàlla kullu yonent gis na yàlla yàlla ëpp lépp Cheikh Moussa nee na yàllaa ngi ne feeñ waaye jaww ji nag ku ne gisuma ko du ci jaww ji say bët la kon ku gis yàlla demal faji say bët moo gën ci yow balaa ngaa dee dem sawara ndax wa man kaana fii haasi ahma wa huwa fi l axirati ahma yàlla ko wax de waxuma ko wa man kaana fii haasihi ismu isaara la ahma gumba ci nee na waxuwa kookee da ciy gumba waat ëllëg rek fi l axira kon ku yëg ne gumba googu dab na la fii ñëwal ci sang bu tedd bi gumbag bitu zahir bi ket ku mu dal da gis koo xam ne mën na cee ñàkk un million su ko yoree waaye na gis rek ngir gis àdduna yow ñi maye gis yàlla nga ne doo ko gis opération bi tax nit gis yàlla gratuite la ah ittabi'u man laa yas'alukum ajran wa hum muhtadun yàlla nee na topp leen ki ngeen xam ne dina leen gindi te laaju leen fay te médecin yi moom suñ la opéré say bët danga nga fay. kon bët bi nga xam ne mooy gis yàlla bëtu xam-xam la xam nga nit ki boo nee gis yàlla rek moom automatiquement. dafa am fu xelam di dem day yaakaar ne benn jëmm la joo xam ne kenn mësu koo gis nga gis ko mu lay jommal moo tax ñu bari ne ay jinne la ñuy gis waxoon nañ ko yonent bi di yonent bi ba mu àggee ci yàlla jóge xaarul xiraa ñëw naan man de garab yaa ngi wax ak man doj yaa ngi wax ak man njanaaw yaa ngi wax ak man <laughs> dañ ne ko dof na تلوم جابون بو موي لا اله الا الله بنيو سي موسى جوخ القران مكو وان يكاد الذين كفروا لا يسلخونك بابصارهم لما سمعوا ذكرا ويقولون انه لمجنون وما هو الا ذكر للعالمين كل ليغي سي ديغي موي نيت يالا يكو دون ييب سي تور وو لا نجاب sikrul ilaahi muntahal wilaaya li annaha mabda wa nihaaya mu ne tudd yàlla nee na mooy fondement wilaaya waaye itam day mooy daytal ba de kon ñi nga ne ñoo daan woote ci jamono koo ci akkoon laa ilaaha illallaah lay wax waaye laa ilaaha lalaa jooju nag dem nañ ba nit ñi xeeb ko ngir lan ku koy wax rek day fekk nga am jafe-jafe oto boog laa mbëkk nga ne laa ilaaha illallaah wala dara bëgg a daam sa kaw nga tudd ko boobu jëriñul di boobu dalalul xel te alaa bi zikrillaahi tatma innal qulub ci tudd yàlla rek ci la xol yi mën a dale waaye tudd yàlla nag boo koy def da nga ci ànd ak sëriñ bu mat sëriñ comme ni ko ibnu asir waxee yashabu zeyxan aarifal masalik yaqihi fi tariqihi l mahalik wa yuskaruhu laha isara wa yusul abdal ilal mawlaahu aarif la wax aarifal masalik xam nga aarif ak xel mu bokkut xam nga tey su ma bëggoon a wax ne diw de xam naa ko wala xam naa dara du ma wax axlamu say du ma wax xalamtu say araftu say lay wax xam naa nangam te fekk loola gis ko tax baatu bi ilmu ak maarifa foofu la jógee maarifa mooy loo xàmmee kon loo xàmmee nag looy gis la ilmu bi nag ci téere yi la yem waaye almaarifatu billaahi kooku ci dënn góor yàlla yi lay jóge demaat ci dënn góor yàlla moo tax képp ku bëgg xam yàlla te ne ci téere yi nga koy xàmmee yokk nga sa bopp réer ndax bay Niass ne la law xarata alf kitabin la tu'arif ila bi seyxin murabbin neena jangal ju ni tere waye do doon arif muk do xam yàlla muk ludul da nga am seexal murabbi kon yashabu seyxan aarifal masaalik yaqihi fi tarixil mahaalik wa yuskiruhu laahu isaarahu wa yusul abda ilal mawlaahu Sudut ki rek matu serigne mune so soo ag ci yalla da ngay ànd ak sëriñ bu xam bu wayi waye masuk jamono ji dañuy dem ci serigne bo xamne neex askan la wala neexu sant la aw sant agul ci yalla askan agul ci yalla waye bo sering. serigne na sant sant yiñ gën a ràññee rek nga ne aha sëriñ boobu kay waaye boo tuddee sëriñ boo xam ne santam mosoo koo dégg maam alaaji Malick se mu ko wala sëñ Tuubaa seexal ko ñu naan sëriñ boobu fu mu bàyyeekoo la ñuy wax xanaa xamuñu luy sëriñ sëriñ dafa am lu mu xam muy suñu borom su ma sëriñ su fekkee nag ay téere la jàng dema demal ci ustaas bi la gën a jege jarul ngay paas di dem ci dëkk yu mag yi am déet bu fekkente ne njàng mi nga ko toppee bàyyi ko te dem topp imam bi nekk sawet ndax imam bi soo amee doom moom ngay woo su nit faatoo moom ngay woo sooy takk sëy moom ngay woo looy laaj ci masalam fiqhiya moom ngay laaj léegi nag kon boo jéggee imam boobu dem ci sëriñ ne ko aslamtu nafsi sëriñ boobu lan la am ak imam bi lan la ñàkk lii nit war nañ di yow mi dëkk Daaru Miset imaamu jàkka jaa ngi nii mbooleem yii ma tudd nii soo ko soxlaa day daw dem ci imam bi waaye dem nga ca àll ba wut fab sëriñ sëriñ boobu nga wut boo dee gis yàlla mu ne yàlla kenn du ko gis àgg ci yàlla mu ne yàlla kenn du fa àgg léegi kon sëriñ boobu loo fay wut bu fekkee àjjana la moomoo sëriñ bi moomu bu fekkee safara sëriñ bi moomu xam nga moo tax gis nga doomu adama dafa xalaatul moo tax ngay déglu ci yenn borom xam-xamu yi nga xam ne xam-xamu xale yi lañ yor comme li sang ñaan di wax loolu nag ku amadug dégg manam day xawa doy ci waar ci yow ndax jangal lu mat at wala juróom fukki at hadis bu ne xam nga ruwaat yi seeni masnat yëpp nga xam ko seeni sanat yëpp nga xam ko toog di waare xale bu ndaw bu Cheikh Moussa jot ñëw jox la loxo ne la asalaamu aleykum yàlla dañ koy gis te yow mosoo gis yàlla dëgg-dëgg lii dafa doy war te ñaata at nga toog di jàng ñaata at pour kooku yow bu fekkee doo nit koo xamante ne nit ku ragal yàlla nga nit kooku mënoo koo nangul waay te yow ndekk sa xam-xam fi mu toll jële naa ci diw diw jële ci diw diw jële ci diw diw jële ci diw ba ca yorente ba léegi nag waaw hadis buñ xoolee at biñ ko biñ biñ biñ biñ ko bind ak at biñ joxee ndigal ñu bind ko ak bi fi yonente bi jógee ay siècle la te lu ne mën nañ ko fee dugal ndax gis ngeen yi fi xewoon ci seen biir yenn yépp jarut ñu ciy dugg ndax sëñ Moussa Ka dégg nga mu naan fa wa jabal imsa ko ama sajara mu ne am na ci yooyu lamiñ du ko laal waaye am na yoo xam ne dees na ko misaal xam nga am na kuréel bu ñuy xadri yoone yi xam nga loolu dafa am lu ko jur ndax ñooñu bi ñuy feeñ bu tey bu fekkonte ne rey nañ la dañ naan la yàllaa ko dogal kon defuñu yàllaa def luñ la def rek ne lii yàlla la mais du nun léegi nag loolu lan moo ko fi dindi ak lan moo taxoon ñuy wax loolu te ci jamono jooju lañ taarif yenn hadis yu bare bare bare bare ci lañ ko dindi nga xam ne tey walbati nañ lu bari am na ci benn waaye dama fàtte tur bi waaye def ne bi mu tuubee def ne hadis yi war nañ koo seetaat ndax nun bi ñu dooni ay yéefar de lu mot junni ak ay junni junni hadis yoo xam ne dugal nañ ko ci biir téere jullit yi te dara wéru ci léeg nga gis hadis boo xam ne dafay juuyoog alquran hadis boobu fan lay wére te li yàlla soxla ci jaam alquran ji rek mën nga ko cee fekk tawhid gu set moo tax tawhid ay wax ci tawhid mu ëpp yonent bu ñëw ci la woote woon léegi nag benn waaye def ne moom julli asalaatu himaadu diin wa man aqama faqad diin wa man adama faqad adama diin hadis boobu dañ ne dafa daif léegi gaa yi bëgg koo réyal mais loolu nan la julli nan la mën a gën a màggee tawhid mooy mu ne mooy kenuk diine te kenu moo ëpp doole kenu gi kay kon laa ilaha illallah mu di tawhid loolu moo war a nekk kenu te saxaaba yi des nga gis ñoo xamante ne day ñëw di werante ci ay aaya ak i hadis léegi lan moo tax loolu leerul woon ci jamono yonent bi man loolu laay wax man parce que bëri na aay yu bëri yoo xam ne fii lënt la allahu alam bi muraad yi te ci yonente bi ko yàlla wàcce te yàlla lu mu wàccee ci yonente bi yonente bi xam na ko ute woon ñu laaj ko ko walla nit ñi dañoo gëmutoon 100 pour cent ndax bi yonente bi fi jógee rek am na ñoo xam ne gëmoon nañ ko waaye dem nañ ci mu musaylamatul kasaab yeesal fa est-ce que kon ñooñu gëmoon nañ xamoon nañ li yonente bi yor te yonente bu leen fàtte ne ñaari nit la daan waxal kàddoom gu ne ñaar man nañ koo dégg te ñoom ñooñu ñu ngi leen di tudd ay jullit am na jullit yoo xam ne àggoon nañ ci maqaamam xirfaan am na ñoo xam ne àgguñu ca woon te ñoom ñëpp dina wax ak ñoom kon waxtu wu ne julli ñun de boo nee julli rek am na ñaari julli yu ñu xam asalaat mooy jokkoo ak yàlla alwudo njàpp xam nañ ñaari njàpp xam na ñaari julli xam na ñaari koor xam na ñaari aj màkka Abdou Khadir Jeylaani nee bi mu demee ci deexaleem gi mu doon deexaleeg boromam dañ ne ko ayu salaatin afdalu indak loolu la laaj yàlla mu ne ban julli moo gën ci yow mu ne salaatu la lay laysa siwaa yi wal musalli anha qaa'ibun mu ne mooy julli gi nga xam ne dara du du nekkut lu dul man te ki koy julli du ko fekkee kan moo ko man ku dul taalibe Cheikh Moussa julli gi nga xam ne du doon lu dul yàlla te ka koy julli du ko fekkee nga loolu boo ko waxee max jóob mu ne kii dafa dof mu dellu ko laajaat ayu siyaamin afdalu indak ban koor moo gën ci yow mu ne as la lasi laysa siwaa yi wal saa imu an xaa xaayib mu ne koor gi nga xam ne du doon lu dut man te ka koy woor nee na du ko fekkee moom fan lay ne dafay fal mu rab rabbi sax kawe na ndax kooku am na tawat bum la fajal mais sëriñu aada yii tey sëriñ yii ñuy jébbalu amul ku ci feebar def ci sa sëriñ ca bu xaaba nga way dem fay ko xaalis bu bari mu faj la ngay ñaan lu ngir tukki ca buxaa nga bay ngay ngay dem bàyyi si sëriñ te sa sëriñ wonut la yàlla mënu laa ñaanal nga am xaalis waaye boo yeexee kay sax buxaa ba nga fekk fa nga fekk fa sa sëriñ ngeen dajee fa sëriñ boo xam ne day dem ci buxaa ba di lu takk li ba mu fees nga ne ko jox naa la sama bopp àdduna ak alaaxira wallaahi asim da xaru boo deexee te yàlla ne na yaayol islaam taqtul anfusakum inna allaha rahima rey sa bopp nag muy xaru moo yëkkati nga jox ko sëriñ boo xam ne tanewut la ci yàlla mu di la laaj àddiye ngir maamam sama maamam fi defoon li yow sa maam am na lu mu def di hmm? bu fekkee maamam la lay wax yow sa maam am nga ko te am na lum def waaye toppub sëriñ ba faatu sa doom ñëw topp ko doomam ñëw topp doomu sëriñ ba ñu ko def nii ba àdduna bëgg a tukki léegi loolu fan lay amee ak ban diine moom ma sa doxee noonu ak ban askanu yonent moo ma sa doxee noonu bu fekkoon lu ñuy doonante la kon yonent yàlla aadama walla yonent yàlla noox ay doomam a fii ne te ku ci nekk ba nga wàccee sa mission ba mate beneen yonent moo wàcc ñu gëm ko léegi nag ana lan moo tax léegi diine ci jamono ji tariixa ngi fi ñu ne tariixa boobu léegi ku ci tënkut rek maanaam ka fa nekk xeeb na la mënoo egg ci yàlla diw baax na mu ne ndax nangam la da koy dégg di ne tariixa yoo xam ne danga diw baax na mu ne waaw ndax moom jébbulu na fan lay jébbulu ci yàlla la ñuy jébbalu jébbalu ci nit dafa xaraam aslamtu nafsi lillahi rabbil alamin aaya jaco ji bu wax inna lasina yu bàyyi hoona ka innama yu bàyyi hoona laa yaddullahi fawqa aydihim fa man nakasa fa innama yankusu ala nafsi wa man awfa bima ahada alayhi llah fa sa nutihi ajran asiman yonente bi moo njëkk def jaayante ca Makka dégg naa boroom xam-xam bu mag ci xam-xamu zahir yi mu tudd ab sahabi ne avant l'islam di ñëw ma ne ko l'islam passé na sahaba boobu di yonente yàlla Muhammad l'islam a ko fi ci parce que alquran jim wàccee ci moom bi yàlla wàccee ci moom moo wax ne waman yabtaqi xayra al islaamu diinan falan wa huwa fil axirati minal xaasiriina te loolu min ladun aadama ila yawmina haza ca aadama ba fii ñu toll nii ku fi yóbbu lu lislaam perte ngay def kon lislaam kay moo jiitu Muhammad am déet kon lislaam dafa feeñe màkka waaye fekkoon na mu am bu yàgg lislaam boobu nag ku ñëw dugg ci oto bi moo yóbbu moo tax kenn liggéeyalu lislaam lislaama liggéey nit ñi ab oto ci dugg rek dem boo ci duggut nag doo dem te am na ñoo xam ne départ guñ feebar feebar feebar boo toll ci war a faatu mais seen yaram yi rek lañ lijjanti lijjanti wuñu seen xol yi feebar xol dafa neex la neex nga def trial nit lekk al mboolem daal neex-neexi jamono àdduna boo loo ci def rek day gën a neex ci yow léegi nag loolu moo tax nag nit ki nga xam ne wutul yàlla feebar day neex ci moom ba ko bëgg a léegi nag feebar bi nga xam ne jamono ji gis ngeen ko korona bi mu ñëwee fàttaliku sax maanaam ay réunion lay jàpp wallahi xanaa xamu leen ne loolu iblis bu taxaw la ngir tàqale nit ñi danga gis koo xam ne ñaar ñoo xam ne ñoo bokkoon ndey ak baay waaye boo tisoolee ci wetam mu abal la am deet gisu leen saqat nag moom boo ko defee kenn dootu dëkk toog ak yow léegi kon loolu lu ngeen koy gisee te loolu yëpp képp ngir bañ a ñàkk sa bakkan bii rek yaakaar ne fii da nga fii da fii sax ba abadan nit ñi lan moo tax ñu ragal dee kon ki nga xam ne ci yàlla nga jóge fas yi fa dellu boo yàkkamtiwut xam nga ne am na lu la dese am déet te am na nit yàlla bu nu toon nit kon dañuy ñaan suñu borom sax wuyu ki liggéey ba wàcc ki liggéey ba xam ne liggéeyam nangu nañ ko ak connaître nañ liggéeyam nangu nañ liggéeyam kooku su wàccee dañ koy fay waaye nag bu fekkee seqee goob tànk pour jëm ci yàlla ndax ku amagut wasila jullil wooral waaye seqee koo ab tànk ngir dem ci yàlla fa firroo ilallah daw leen jëm ci yàlla nga jël sa satala dem jàpp ni allahu akbar àggagoo ci yàlla parce que fa arifooni qabla an yaabudooni wa in lam yaarifooni fa kayfa an yaabudooni loolu nga dindi balaa ngaa def loolu xam ma soo defu soo ma soo defee loolu te xamoo ma nan ngay nan nga nan ngay jëriñoo yow yaa ngi fekk teere fekk fa ciment fekk fa ndox fekk fa suuf commencé muul wala nga commencé tabax te gisoo boromam xamoo boromam ndax da nga fayeeku soo pare doo fayeeku ki la yàlla jox boroom kër gi ak njafandu yi ci nekk loxo njafandu la bët njafandu la ndax booy xool moom nga yónni gis ndax euh, dégg njafandu la ndax booy déglu moom nga yónni tànk kasaalika loxo kasaalika làmmiñ noonu léegi nag njafandu yooyu lay lay bañ nga tere ko comme bi nga ne allahu akbar kabaru armal dangaa yëkkat sa ñaari loxo di du li bi moo la fiy jugal du noddu gi waaye kabaru dugg ci biir julli gi nee nga yàq policier bi bu ñëwee ne la da noonu ngay def say loxo noonu nga def ci yàq mais bi nga defee lo loo ci teg di loo ko doon jàng kon kay sa jox nga koy ndax ay cadeau nga ci wax kon say nopp lan la wara a dégg yàlla say bët nak léegi nga ne bët bi du gis yalla njafandu bobu tere nga ko kon xuru mbugal wi ñel na la yow foo ko teg nga ne ci suuf perte nga sa jëb bi foo ko teg nga ne ko ca suuf perte nga laa tas judoo li samsi wala lil xamar as judoo lillaahi kon kay bu yàlla ne bu leen si jootal jant bu leen si jootal weer suuf si ci la bokk jeexal na fi ne nee na man sam jeexal naa li moom parce que ak bopp yow moo indi ñetti fanaay fanaa ci sama jeex man ci sama jëmi wajatu laa fekk nga di moom yow yàlla kon yàlla ku koy xool tubsiroona xool leen ko ci da sax boroom xam-xam boo xam ne jàng na te waaye boo waxee mu yàlla ci kaw di joxoñ ci kaw xanaa gëmut huwa si fi sama ilahun wa fil ardi ilahun xanaa gëmut lool yàlla la ci asamaan suuf si suuf si kay xam nga scientifique yi sax dem nañ ba xam ne moom asamaan juróom-ñaari asamaan yi ñu wax xam nañ ne du lu luy tegaloo lu dul tegaloo di dem loolu moom trouvé nañ ko léegi asamaan yi da nga gis ñoo xam dañ ci def dem dañuy waxtaan ba sonn mais duñ xam dara te fekk li la yàlla di wax innahum yarawnahu ba'iidan wa narahu qariiban yàlla nee na mu ngi nii gaa yi di ko xool fu sori. wallaahi wallaahi safara fi ko gaa yi di xool mu ngi fii. xam nga boobu wax ne bu naaj wi tàngee na ngeen bu fekkee jant bi dafa tàng mu ne ndax tàngoor woowu dafay jóge ci min fay jahannama ceeñeeru jahannama mu ne na ngeen teral borom xam-xam yi ne waxtu julli deux heures la ak waxtu julli tàkkusaan ndax am na tàkkusaan am na dëkk yoo xam dafay tànk julli gi ana mu ji seral leen ko jamono jooju dafa tànk lii xoolal ni mu leere borom tafsirkat yi fi mu toll nii lu ne saraa nañ ko naan lii nanga ma tax mu wax ko moo tax gis nga ñu bari laa la waxal nii seeni wax moo leen di dugal sawara xam nga yalla def ne taxaw len julli aqay moo salaat taxawal len julli waw taxawal julli ak taxawé julli lu gën ah de taxawal julli ak taxawé julli lu gën jëmi julli ya nga nele ñi taxaw di eh, di jang fatiha ñu nga nele ñi sëgg di ruko ñu nga nele ñi tok di taya ñi si ñu nga nalé andeet ci rek waw taxawal garab ak taxawé garab lu gën samp ko mo gën di am motax mu ne taxawal len julli te bu tangé na ngeen seral kon jamono bi mi wax lolu ñaari nit lay waxal amna ko xamne ci julit batin gi lay wax ak mom amna ko xamne ci julit zahir gi lay waxal parce que babun baatinu fi rahma wa zahiru min qibali al azab te ndeke ci tangoru safara ci lañuy dunde am det gis nga tangoru frigo bi nek wagn yi nek ci ginaaw ci lañuy nané ndox mu sedd موي بابون باتينو في رحمه وظاهره من قبله الحساب بونتو بو خامني بيتيك ييب مبوغال لا بير جي موم نيه رك لالال فريغو سي غنا جير دوغال سا لوخو سي بير مو سد غوي اه تخ يالا كيماني يالا دافا داجي لب ne afaman yamsi mukiban ala wajhi ahda afaman yamsi sawiyan ala siratul mustaqim kii dox képp aw jëxam sëgg ndax bokk na kii dox taxaw jon ah walaw na saawla tamas na ala ayunim fa mastataw mu di an wala yarjoon wala du noonu la ko waxee walaw na saaw nee na bu ñu neexoon ñu masax leen dootuñu mën a dem dootuñu mën a dikk nit nag bu daan dem ak a dikk ba mu yàgg mënatu a dem mënatu a dikk daa avancé wala dafa dellu gannaaw li lépp alxuraan koy wax gaa ji toog di xoole rek xëy jël say mépp teg toog ci buntu kër gi yor kaamil bi naan do li seet doo ko gis nekku fa loolu du kaamil kaamil mooy nit yow mi ko yor yaay kalimati rabbi lanu fi dara xabla la yàlla wax mu ne géej gi bu fekkoon géej gi yëpp daala masalan nga def garab yëpp ay xalima nenañ dinañ ciap di bind ba geej gi ngeer daa ji ngeer te nee duñ bind kaddu bi yalla wa ko téré bi pot pot potu da potu kilo bi man na bind fukki téré ci da ndax bobu la yalla bobu la yalla di wax waxut lolu motax señ sëñ deg da ana kitabullah man may téré bi yalla gaa ak ko ne ko bambali nga wax reyna di mu ne bi ngeen di jàng di dey moom la bindulu waaye bu dee bi mu bindal boppam mooy bii ah waaye yow téere bi yàlla bind téere bi yàlla bindut dina ko wedd ma ne téere bi yàlla bind mu toog di wax mu ne xaasaa kitaabu naa yantiqu aleykum bil haq waa nit ñi xanaa dégguñu alxuraan lii mooy sama téere bi may waxee ci yéen dëgg hmm? baatub nutq mooy wax biñ bind dëgg nag seet ko te boo ko dàqaatee sax fekkaat le moo tax samax sar yi li wax gaañi di ko ci jam doy na waar parce que def ne alxuraan maxluuqun mu ne alxuraan mbindeef la te sax dafa am baat bu mu wax ñii ci melo yàlla yi la bokk waaw melo fu muy nekk du nekk ci jëmm hmm? ah. <laughs> samaxsar yi xam nga muxtasila la muxtasila mooy ki nga xam ne ci ñeenti ngir yi nekku ci benn nekku ca maam ihtasala mooy mooy beru na maam dafa am gis-gisu boppam Aziz diw lii la wax diw lii la wax Malik lii la wax Abu Hanifa lii la wax Ibnu Hanbal lii la wax Safii lii la wax yow loo wax te yonente bi bi ñëwee di ko gaaral ñu njëkk ña alxuraan def ne ko tilka umatun xat xalat laha ma kasabat wala kum ma kasabtum wala tusalunna ama kaanu yabaloon mais lii dafa leer sëñ Touba it biñ ñëwee di ko tegalaat ñooñu loolu la waxaat wala tuqassis fadla rabbi xat ala bi si taqaddumin fa xat fataj ala bul jël ngëneelal yàlla jëgleel ko aase yi ñu dem léegi rek nit ñi mais yooyu bi yàlla ndax jàngoon na dara gëm yàlla dina wàccee ci ñu Cheikh Mor Diouf Bambey jaar naa fa keroog may jógee Touba rek bërki démb fa laa indil na gaa yi kàng-kàng daf ne leen li ngeen wax na ngeen ji mbindéef saxut ci texte ci groupe bu bo ñu bari xam-xam ci zaahir waaye gaa yi biñ demee day mënuñ ci dara de parce que yonente bi boo waxee maa leen gën loolu ci kàddaru lan la maa leen gën kàddu kan la kàddu iblis ah yonent moo gën ci ñun sunu ndey ak baay bi nag leer la toog na ñeent fukki at mu doog koo ñëwal ne ko maa kunta tadri maal kitaab wala iman walakin jahalnaahu nuuran nahdi bihi man nasaa yonent boobu moo gën Muhammad parce que moo def Muhammad li tax mu doon Muhammad moo la def li tax nga doon ko yow sa bopp kooku nag du faatu leer la xat jaakum minallaahi noorun wa kitaabun mubin loolu la yàlla wax kon nit fekk gindeekuwut ci yàlla moog mala ñoo yem moo tax yàlla di leen xas naan in hum ila kal anham comme ay mala mala yi buñ nekkee ci àll bi xeexante di lekkante looloo am ci suñ jamono ji da ngay nekk ak nit ngeen bokk jëkkër kii di wuti ay nopp kii di wuti ay nopp ñu jox ko nopp bu fanaan biir ba néewi mu faatu ñu des fan ak seddoo kër ga ana bàyyi ji ñu ne faatu na de ana sa yaay mu nga nële ah. moo tax xam yàlla moo war ci jigéen ñi ndax bo xamé yalla da ngay xamné bu jëwo waye ay cheikh ngeen mas ngeen a cheikh bo xamné da ne dafay moromu cheikham seexam mas na am ah ben bi febaré sax té gis nga légui ñenti dom sax dañ koy gis ak lu ko man ñett sama yum pañam nako ñet ah nga gis ñett ñu bokk jëkkër kon ñooñu war nañoo siisante goro kay wujje kay sa sa sa goro nga ko war a def ni sa goro def ba am doom ju góor ju mën yor soxna mu takki la indi la takkaat sa morom indi ko noonu mu def yow noonu nga kooku nga war a teg soog loolu mooy wujje waaye lii moom seexandoor la nit ñi nag xamee ko noonu léegi nag loolu lan moo ko waral àdduna fi mu toll nii benn dëkk boo xam ne bu ya bu ci biir Sénégal buñ miin ci lislaam sama benn góor yàlla dafa wax ne dafa am sëriñ bu nekk seen dëkk boo xam ne sacrifice rek lay def am ñu jóge fofu ñew fa mu ne xana dekk sangam julit néew fa allahu akbar ne ko a ah, fofu kay ay julit kese fa ne mu ne a ah, bu mala wonon tour yi fi de ak photo yi fi mu ne surtout béréb sangam tuddu fa béréb sangam bo xamne ay commerçant rek a fa ne léegi fexe nañu saytaane fexe naa roof nit ñi ba fi toll ni amal mbaa bokkoo léegi ku yaakaar ne ku war a defar loolu lu dul Cheikh saa nun ñoo war a dindi loolu da gis koo xam ne xew jar na koo def pré banque financé ko ci lépp mu wëlbati ko di fay te kër gum dëkk amu ko léegi kooku kañ lay dabe te ci jamono yonente bi nit daan xiif doo am loo lekk Malick na ngeen def ndax kooku tal naa jël nit maanaam tal naa jël dara naan da koy da koy céetalee ka def ay bagaas moo tax bi yonent bi ñëwee ne leen yaa ahlal kitaab taxalu ila kalimatin sawaa'in baynana wa baynakum allaa na'budu illa allah téere yi boobu ñii ngi yor tawret ñii ngi yor injiil ñii ngi yor sabuur ku ci nekk di wax la la neex parce que boobu taarif nañ ko bu yàgg yu arrifu al kalima an mawaadihi nañ tege woon baat bi dindi nañ ko changé ko yonent bu ñëw ñëw na ci yow dégg googu nag bu ñëwaatee minallaahi ilal abdi rek ci yàlla lay jóge ñëw ci jaam bi moo tax xam-xam ci nit la ne bind yi ngay bind sax ci sa bopp nga ko jële kaaba gi sax balaa bi ci yow la jóge moo tax Rabi al-Wadawi bi mu demee ci kaaba ga di ko wér naan ko hubbuka hubbayni hubbul hawa wa hubbul la si anta mu ne ko bëgg naa la ñaari cofeel cofeel gi nga xam ne maa la ko waroon a sopp ak cofeel gi nga ma mayoon ma war koo sopp góor mu ne jaay naa bi ma waroon a sopp góor sopp la ko yow yàlla boole kook sa bos loo ma ciy fayee benn waay romb ko naa ni ko yow xanaa xamoo ci kaaba gi nga ne mu rukk ko ne ko man ki may waxal sama kër laa ko bàyyi ànd ak moom ñëw fekk ko fii te yàlla def ne fal yax bu doon a paasal bayti jaamu leen borom néeg waaye bu leen jaamu néeg bi néeg boobu doj wa Omar def koo xool ne ko innaka hajarun laa tadur wala tanfa walaw laa raaytu rasulullah yuqabiluka ma xabaltuka mu ne doj nga rek doo lor doo jëriñ su ma gisutoon yenn nit foon la sax duma la foon ñooñu xam nga ne seen ngëm a dëgëroon na yi nag ku ñëw raayoo ko yaakaar nga ne ajoo aj moo aj moo gën aju moo gën aju ci yàlla moo gën aji makka gi am déet alhaju ajjaani haju jismaani wa haju ruuhaani wa haju jismaani ila kahbatil mabaani wa haju ruuhaani ila hadrati tadaani wa man ajja ila kahbatil mabaani xusisat bi xufraani wa man hajja ila hadrati tadaani kusifatil hujbu hata yaraani hmm? mu ne aj ñaar la ci kaaba gi ak aj ci pays bu sell bu jege yàlla bi mu ne aj bii nag ku ko aj ci kaaba gi jagoo nga sama njégal waaye aj bii nga xam ne ku ko aju ci pays yàlla bi nag nee na ma wëññil la samay kiraay ba nga jàkkaloo man hmm? suñuy xanaa wax na su ko xari ko am. abonné wu ci seen YouTube bu Ndiamé TV bësal na station bi ñu tàmbal la foofu nga mën a abonné wu. ndax ngay mën a am vidéo yi ñu dugal chaque jour.